Cheikh Ibra Faty mbakke di borom daaru mi ngi gane àdduna ci atum 1863 wala 1865 ca Poroxaan ba mu ganee àdduna ci la ko Sëriñ Tuubaa tànnaloon boppam def ko muy ku sës ci moom ci woote bi nga xam ne moom la ko sunu boroom nar dénk te Sëriñ Tuubaa ci boppam daan na ñaan loolu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee ci Seydina Omar ngir mu dooleel diineem ji loolu la sëñ Musaa Ka di wax naan bis bam juddoo ba takku ser baatam ba cheikh bamba daw njëkkante koog baayam ba keroog la mamor antanaan cheikh bamba sa ñaan ga nangu na kilee yor yan ba xam naa ne booy donay rasulullahi mooy sama aliyun mbaa omar billahi so bamba don Musa Mudim Aruna seeni mbir ak yooyeeli mbir dëppoona way juramu góor di sëriñ mor anta sali mbàkke way juramu jigéen di soxna faati isa job moom jaga isa borom daru bok ak borom touba ci wet yeb ngir soxna faati isa job mi way juram doomi soxna ab sambake la te soxna ab sambake momu mok mook soxna assawaalo mi jur mam jaara buso ño bok benn bay muy ahmadu soxna buso moom mam mara motax serigne musa ka nan ko nga neeli zahir ya mu ak bamba ci walu mam moo mo mu àttan yen ba moom borom daru am na ñett ñu mu bokkal wenn waajur wu jigéen ci kër sëriñ Mor Anta Sali muy sëriñ Modou Faati Mbàkke ak soxna Aminata Mbàkke ak soxna Faati Mbàkke mi ngi mokkalee alxuraan ci magam tey sëriñam di Cheikhul Xadim sëriñ Touba it jàngal na ko lu bari ci xam-xamu fiq ak tawxiid ginnaaw ba it jàngee na ci xaalima jaxate kala ak ku ñuy wax sëriñ Mor Biraama jaxate sëriñ tuuba moo ko tarbiyal boppam moo ko tarxiya moo ko tasfiya ba mu mel na mu bëgg ginnaaw ba Sëriñ Tuubaa gërëm na ko gërëm lu kawe loo xam ne ak sàññe du ca mukk te loolu li koy firndeel mooy bataaxal bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko bindoon boroom daaru bismillahi rahmaani rahim mata taqawu aynuka ala hazihi alxuruf fa anka ridan la suxta baadahu abadan wa bi annahu taalibun min allahi wa taala laka maa yaxbituka fiihi jamiicu amsaalika fatib nafsan wa qarri aynan wala tashukku fi kawni haza min rabbika ilayka bi waasitatihi wallahu ala ma naqul wakil sëriñ tubaa ne ko yow cheikh ibra faati soo gisee sama mbind mi na la wóor ne gërëm la ngërëm loo xam ne du deñ mukk te it ak xarab du ci topp te nga xam ne sakul na la ci yalla lo xamne ne sa moroom yépp dina ñet ñe kon nak na sa xel dal na sa xol sedd te bul am sikk saka mukk nak ci ne lettre bi mi ngi bayiko ci yalla jaar ci bi sallallahu alayhi wasallam ma jotel lako serigne touba joxon ko ndigal muy jang ak jangale ak tarbiya njabot gi ba ñepp defaro lolu motax ñu bari ci njabotuk serigne touba borom daaru moo leen jàngal tarbiya leen ku ci mel ne sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou looloo tax sëriñ Fallou daana wax ne maag cheikh Mouhamadul Moustapha sunu baay ceerno daf ñoo jàngal bañ ne ar mu yarnu bañ ne nër ku ci mel ne sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi moom it borom daaru jàngal na ko lu bari jàngal na it lenn ci mag ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ Touba ku mel ne sëriñ Masamba Mbàkke sëriñ Maxtaar Binteloo ak sëriñ Mor Roqee Buso boroom daaru mooy ki nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa doyloo woon ba muy dem Gabon ca tukkib géej ga dénkoon ko yoonam wi di yoonu murit ak njabootam gi te mësu cee am lu ko naqari sëriñ Tuubaa it wóolu woon na ko ci lépp di ci mbiri boppam ci mbiri njaboot gi ak ci mbiri yoon wi ba mujj boroom daaru ak boroom Tuubaa di ñaari jëmm yoo xam ne ñoo bokk benn histoire mu amoon wàccuwaay lool ci moom saña dogal foo xam ne sëriñ Touba rekk a fay dogal te lépp lu mu dogal bu sëriñ Touba ñëwee ànd ci ak moom ngir la sëriñ Touba waxoon ne Ceerno de mooy nun sëriñ Touba ko joxoon ndigal mu nekkal ko ca Mbàkke Kajoor ginnaaw ba ci la ko sëriñ Touba jox ndigalul sanc ab dëkk muy Daarul Muxti ci atum 1912 te li ciy firnde li mooy lettre bi nga xam ne sëriñ Tuuba moo ko bindoon di ko ci jox ndigal sëriñ bi ne ko wa baada al basmalati wa maa yaliqu min attaxiyaati almubashiraati faqad uzina laka fi binaai tilka daari wa fi lxafri wasmuha daaru lmuti wa alaykum assalaam yubashirukum xaysu kuntum sëriñ Tuuba ne ko ginnaaw bi ma la nuyoo nuyoo ba gën a rafet maa ngi lay digal nga sañc dëkk te nga tuddee ko daarul muti yàlla na la defal jàmm te saxal la ci mbégte foo mën a nekk boroom daaru ànd ak boroom tuuba cig ndawam ba cig magam ni ko sëriñ tuuba waxee ne ibrahimu lladi lam yufaarix nii fi sigarihi wala fi kibarihi keroog bi seen way jur nelawee di sëriñ mor anta sali biñ demee ba war koo miiras ne ñu sëriñ tuuba daf ne miiras mi de lu dul kaamil bi ak cerno xawma ci soxla loolu nag day firndeel xër gu borom Touba xéroon ci borom daaru ak bëgg gum ko bëgg doyloo woon ko ci lépp mu am ci sëriñ Touba wàccuwaay woo xam ne kenn mësu koo am ci moom gën a xam ñépp sëriñ Touba ëpp ñépp sañ-sañ ci sëriñ Touba lépp lum am jox ko sëriñ mës sa bëggal boppam dara bàyyee léppam ak ñéppam sëriñ Touba bëgg sëriñ Touba lool ba sëriñ bi ci boppam daana ko seede ci ay bataaxal yum ko daan yónnee naan ko ay ayyuhal masbuuxu bi xubbinaa maanaam bëgg sëriñ Tuubaa bu doon ab paaka la mën nañ ne paaka boobu rendi nañ la ci melokaan wi mu meloon ci sëriñ Tuubaa nag dafa yéemoon sëriñ bi lool ba sëriñ bi daana ko seede ak di ko wax ay nit loolu la sëñ Musaa naan xam na ci man loo xam ne kenn xamul ko am na ci man loo xam ne kenn amul ko yéem na ma ngir lam xam ci man te waxu ko ak la mu xam ci ay araf te jàngu ko yéem naa ko ngir xam-xam ba lum bari bari xam na ne maay bahrul ulumi maa sori yéem naa ko ngir lum masa am man la ko jox maa ko gënal boppam te kum jox du la jax noonu la nekkeek ak Serigne ba bi mu noppee gis Serigne Touba ci wam Wamsachin ci atum 1927 mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo samp Cheikh Mouhamadul Moustapha muy xalifab sëriñ Touba digal murid yépp ñu topp ci ginnaawam daal di ne ko yow Cheikh Mouhamadul Moustapha toogal fii. te nekk ca li sa baay nekkoon boo nekkee ci li sa baay nekkoon de boo melul ne moom it nit ñi dinañ la teg fañ tegoon sa baay yii di yilife dëgg nag jar ta xëccoo waaye doy nit ñi moom a ta xëccoo te boo doyee nit ñi foo nekk ñu fekk la fa daldi wax sëriñ Fàllu ak ay rakkam ne leen topp leen seen mag ji te bu leen ko woon ginnaaw mukk ndax ñun waa kër sëñ Mor Anta Sali lépp luñ am lu ne ci topp suñ mag lañ ko amee te bu seen mag melul ne sun magit seen mag gën sun mag bay noonu la ko digalee njabootu boppam ak mbokk yépp ñu sax ca loola lépp lu cheikh muhammadul mustafa nekk ñu àndu ci ak moom borom daaru mi ngi làqu ci bisub alxamis bi nga xam ne ci la gane woon àdduna ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru chaban ci atum 1362 dëppook atum 1943 ci atum tubaab yàlla nañu ko yàlla fayal te taas ci barkeem te sàmmal ko ak njabootam بجاه قادم الرسول